أنت ربي وكنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim mbokk yi si vous seen site internet bi di 24 actu ñoo desiwaat ak yéen ci waxi Serigne Touba yi Serigne Touba xaadalahu laahu lahu nee na ndaxam moos war ngeen a góorgóorlu ndax kenn ci yéen ku ne suba bu xëyee ba jant so ñaari malaayika ngi ci kaw ay maggam malaayika mii ci ndeyjoor lépp loo def ci lu baax wala nga wax ko bind na ko mii ci wetub càmmooy lépp loo def ci ab safaan wala nga wax ko bind na ko koo xam ne nag am nga koo xam ne nii bu gont dañuy fob téere ya jaar fi moom lu ca mat a dindi mu dindi ko dangay góorgóorlu daldi ne gees sëriñ ma Masamba ne doomi Masamba Jóob ji de jub na sëriñ Tuuba mas naa wax sax Ibra Faal radiyallahu taala anhu Ibra Faal mu ne ko Mbàkke mu ne ko boo génnee ci réew mi loo xam ci man lu mu tuuti tuuti bu ko nettali ñetti yoon Seex Ibra Faal dem dikkaat ne ko koo wóoluwut wóoluwu la man it lu ma la liggéeyal lu mu tuuti tuuti bu ma ci fay dara ci fii ci àdduna sëriñ bi ne ko buur bi bu jiitalee géttam ba ca mbalkaam wékk ko jëm ak baagam yor ko ci teen bi ba mu àgg mu làbbali ko ba mu fees mu di ko jukki ba mu yor pind ba Cheikh Ibrahima Fall ne ko tawit lagg wuti mbalkama di ko ca sotti ndox yay rot ca diggante pind ba ak mbalkama ndax sañ na koo bañ Serigne Touba ne ko déedéet Serigne Touba ne ko loo gis ci àdduna noonu la demee Sëriñ Tuubaa nee na ku yokk samay wax mbaa nga wàññi ko xur wu tàng wa ñetti nóor woo ca dëkkul it ak seeni nawet danga ko ca am Sëriñ Tuubaa mas nay jàngulu ak xasida ba ñu agsi ci bayit wii taqdiimu ahmad abni abdillaahi yaarifuhu xayru xabiyillaahi mu ne nañu ma wol ahmadul aqiliyu mbooloo mi yéemu lool ba mu agsee sëriñ bi ne ko bi ñu tuddee bayit wi la sama xel dem ci yow moom it ñu bëgg lool sant ko lool kon bokk yi fii la ñuy yem ak yéen di leen jox dig daj ci beneen yoon incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu